serment passation de service ñaari xew-xew yu fës ci ñaari fan ci weeru avril bi fii ci Sénégal loole tax ba ñu dellu ci ci lu ëmb ñaari baat yilee serment boobu dafa am solo du rek cérémonie boo xam ne day am xumbaay nit ñi nekk fa di fecc wala di tàccu noonu dafa war a ne loolu ñu yan boobu ñu ko sas dina ko def ci kaw ni ko ko constitution bi waxee ak surtout nag ni ko sénégalais yi joxe seen confiance léegi nag su demee ba def prestation de serment boobu ba léegi doyul ndax amoon na gat ku fi nekk kooka nag il faut mu dem ca kooka kooka soog ko jébbal lenge yi loolu mooy passation de pouvoir day toog ak kooku kooku won ko dossier yi mu doon liggéey na mu jote woon pouvoir bi mu daal di ko ko joxe noonu. président bu bees bi ndax am na sañ-sañu bañ a sàmm kàddoom ginnaaw bi mu waatee ci kanamu conseil constitutionnel. tant que mu ngi président day war a ne moom prêté woon na serment loolu dafay tax nag bu demee ba jalgati serment boobu mun nañ ko topp ci yoon sax di nga dégg ñu naan parjure di nga dégg ñu naan haute trahison. ay saytukat ci langue politique gis nañ ni jamono ji keesu nguur gi daanaka amatul koppar su loolu amee ndax Macky Sall am na sañ-sañ yóbbu Abdoulaye Wade ci yoon. caisse noire moom la ñuy tuddee fonds politique loolu moom dañu jàpp ne kenn mënu ko saytu président bi ñu ko jagleel nu ko neex la koy utiliser. mais nag bu weesoo loolu li nga xam ne budget de la présidence la ak yeneen yi nga xam ne dafay relever li ñuy wax de la comptabilité publique yooyu nag moom il faut mu wone lu mu ci jot a dépensé ci yan anam la ko dépense. Macky Sall nag tey jii la jot lenge yi waaye am na sañ-sañ bañ a dëkk ca pale ba. fii dañuy jàpp ne buñ la nommé rek da nga war a bàyyi sa kër dem dëkki président présidence de la république. en réalité pale mooy sa bureau foofu ngay liggéeyee. Macky Sall di door ci tey jii mandaaw juróomi at ci li ci gën a néew mu nar a am sas bu takku lu ci mel na seeraayu dund gi.